benn question par rapport à Aïcha lu mu junj si affaire dialogue bi quoi. Mhm. gis nañu si question dialogue bi am na euh, biir imp je vois mini implosion biir yeewu askan wi ko Barthélémy Diaz ak nga xam mooy Ousmane Sonko euh, Barthélémy Diaz di attaquer Ousmane Sonko depuis les derniers jours il a tort d'attaquer Ousmane Sonko wala yéen ñi nga xamante ni si biir coalition bi ngeen bokk. waaw ñun ñi nga xamante ne euh, ñoo ŋànk coalition ñoom ñaar ñëpp di ay acteurs ci biir coalition bi bon dafa ci biir këram. kër yenn saa yi euh, situation dina demee na nga xamante ne xëccoo ay kàddu dafay am mais ça se gère ñi nga xamante ne ñooy kilifa yi ci biir euh, coalition bi euh, yëkkati nañ seen kàddu àddu ci donc yaa de des démarches yi nga xamante ne entreprendre nañ ko ñu di ci waxtaan et que c'est une situation bi nga xamante ne ñun bon en fait ñu ngi koy déplorer ah waaye nag mënta ñàkk ci ànd. ànd boo gis te mu dëggu lool te mu. yenn saa bu ëppee loxo dina yàq coalition bi s'il vous parce que ànd bu dëggoo dëgg dëgg dëgg dëgg yenn saa yi di nga gis situation yu mel nii. waaye bu laloo ci la nga xamante ni du dëgg ay signe ak ay raayalante ndig rek ngay gis ànd boobu boo ko gisee ragal ko te nga moytu ko. lii lii kilifa yi sol nañ la wax ci te am na médiation bi nga xamante ne mi ngi en lii daf ñuy jàll. daf ñuy romb léegi mën nañu réconciliation mën na am euh, ak kàddu yi fi jotu jib non xam nga ñu féewaloo ñooy réconcilier wu mais fii féewaloo dafa amul ay kàddu yu jot ak dënn yu tàng